Euh, dina njëkk sant yàlla bi ñu mayee ñu fekkee lii euh, may ñu it euh, ñu de jot def campagne bu mucc ayib def ko ci Sénégal yëpp di gërëm di sant sénégalais ci teel nit ñu teeroo un parto partout Sénégal nga xam ne vous l'avez tous suivi yéen yëpp dund ngeen ko en muy loo xam ne defe naa ci élection législative lu sénégalais mosul gis la ci loo xam ne joxe woo xaalis organiser meeting. da nga doon romb donc ci dëkk loolu nag dafa yokk suñu yaakaar nekk sénégalais yi euh, won nañu gannaaw régime bi fi ne te euh, dogu nañu ci changer waaye changement boobu pour mu am il faut que sénégalais yi génn woote wax naa ko ci campagne bi yëpp surtout jeunes yi nga xam ne foo dem nu mu tuuti tuuti 5000 10 000 jeune dinañ topp sa caravane sur 4 kilomètres mais leen di rek baax na waaye am na lu ko gën mooy la carte fexe ba mu dugg ci biir urne bi loolu moo fi jëlee régime bi régime bi euh, daw ci caravane du ko fi jëlee xeex ak gendarme ak policier du ko fi jële liy jëlee régime bi dëgg-dëgg fii mooy kenn ku nekk fexe ba dugal bulletin ci urne bi pour sanctionner le régime kon ñu ngi profité lancé waat appel sénégalais yëpp nag ma waa Ziguinchor waaye waa Sénégal yëpp laay waxal fi mu toll nii parce que bi may ñëw dañ ma ne ñi génnagum pour wote dafa néew trop. Euh, daanaka liñ ma jox ci ay lim sax bu dee loolu moo confirmé wu dina doon loo xam ne gëw ma ni ci histoire élection Sénégal mus naa faible noonu su dee nag Sénégal liñ ñu woon ci campagne bi dëgg la ci ñoom jàpp naa ni amul dara lu war a mën a justifier que du ñu génn woote ba nga xam ne fii ak 6 euh, heures 18 heures dinañu dépasser 50 wala 60 pour cent ci taux de participation ndax bu ñu toogee seen kër yi loolu. Macky Sall ak nguuram lay arrangé parce que ñoom ñi ñuy jox xaalis pour ñu wote ñoom dañuy génn waaye ñi nga xam ne ñoom euh, seen xalaat ak seen xel rek la ñuy demee pour wote nga xam ne ñooy tànn te lu ci ëpp ñun la ñuy tànn ñoom ñooy faral souvent di toog ci kër yi ak ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi moo tax ñu ne leen euh, ñun de li ñu waroon def def nañ ko mënuñu def lu weesu lii bu dee nag dañoo bëgg Macky Sall wéy toog ci dëkk bi wala mu am sañ-sañ day def troisième mandat nga xam ne bu ko fi waxee ñi wote jiwul woon pour dagg loolu ñoom ñooy njëkk a génn dañuy dem xeex yi moo tax ñu ne leen am na lu gën a yomb xeex mooy ñu fexe ba tey jii Macky Sall ñàkk assemblée te li koy andi mooy wote du toog ci kër yi di commenter du topp ci gannaaw caravane euh, amul lu ko mën a justifier du taw ndax ñun xamante